أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بوك جولدي بوك تالوي نيوم بلين نيو بلين زيارة بلين نيانا جام التوفيق التيسير di ñaanal suñu mutaqa mbacke mu yàgg di leen ko ñaanal di ko ñaan mboolam xalif généraux yëpp di santaat suñu borom mi nga xam ni moo dogal ñu mën a toogaat di fàttante suñu diggante di ko ñaan ak yombal ak taysiir ci liggéey bi mu mel ni dañoo dikk tey ci benn tom boo xam ni dafa laal jullit ñépp te ñi nga xam ni kat moko waral du len lu ay togn togn yo xamni dafa jóge ci ñi xamni ay nonu l'islam lañ di nonu jullit di nonu suñu borom way nak di nonu ki nga xamni moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon mel non rek am na nu mëna mën jëflante ak mom bi ko waxe nak moy la nga xamni xewna ci Palestine muy loo xam ne képp kuy jullit ak fépp foo mënta nekk ci ko suuf war nga ko mettit lu war nga ko mettit fépp foo mënta nekk ndax dafa xew ñaaw na dafa xew ñaaw na trop ci dégg ak ci gis rawatina fekke ñoom nag dañoo dañ ko fekkee di ko dund mu ay xat-xat yu metti loolu lépp mel ni kon ay noon yoo xam ne dañoo solidarité ngir faagaagal ñenn ci jullit ñi kon mel ni ay noon fépp foo xam ne booloo nañ doon benn te kenn ku ne xam ne ku wax mbooloo mooy doole mbooloo boobu ñoom bu ñu booloo ñoom ñaar wala ñett ñoom jullit ñi dañoo wonoon booloo fukk ndax am nañ capacité bi am nañ mën-mën gi waaye daf mel nag dañoo toog di ko metti suñu xol ba am na ñoo xam ne loolu lañ mën ndax mën ñu jóge fii dem foo di xeexi ndax mbir état la da ciy da ciy da ciy dugg waaye ñi nga xam ne nag ñoom la yàlla jox mën-mën gi di profité tamit di sant bi saluer li nga xam ne Erdogan def na ko di woon un bon exemple ci jur ñi di la woon njiit taxaw bi nga xam ne war na ko am saa boo xam ne laal nañu askanam mu ay jullit mu mel lañuy aar di masjidu aqsa bërëb bu sell woowu day mel ni kaaba gi rek ña fa dëkk ëpp lewuñ ñi ci ñu dëkk màkka ëppale ñu dara ci li nga xam ne mooy kaaba gi ñi nekk Palestine tamit ëppale dara li nga xam ne ci li nga xam ne moom mooy baytu maqdis yi nga xam ne fa la yónni saa sam rañaane woon kon mel ne kon bi ko doon séddoo tamit bi ñu ko doon séddoo dañuy kenn ku nekk wala ñu sa cër sa cër googu tamit daanaka waroo seetaan ñu di ko foqat ci yow te ñi koy foqati kat ay noonu lislaam lañ te buñ ko moomee dañ ko bëgg màmbal daf ay bërëb bërëb yoo xam ni dañu fay bokkaale sunu borom bërëb yoo xam ne dañu fay bokkaale suñu loolu rek daal na lu ñaaw la ñi ngay rey xale di rey góor di rey jigéen te du mujj fenn kon nag lu ñu mën am mooy dal métti lu ko suñuy xol waaye nag di ko dénoncé di wax saa su ne sëgëm ba amuñu kàttan ku ko mën a dindi. kon nag ñu bëgg xam ne kon képp ko xam ne jullit nga nekk fii ci kaw suuf di dund muy Sénégal rawatina Sénégal comme Sénégal yi nekk nañ ci bàyyi xel dina bàyyi xel ñaan mënta ñàkk xeebu ñu benn ñaan yónni saa sër mës ñaan keroog xaru Badar dafa taxaw dafa ñaan ba kol gi dafa wadd parce que bëggul islaam fay doon islaam sunu borom neen du fay mukk yuriduuna liyutfi'u nuura llaahi bi afwaahihim wallaahu mutimmu nuurihi waaye ay yuriduna an yutu nuuru laaj ba fa wa balaahu illaa an yutima nuura kon moom leer gi moom du mas a fay leer gi du mas a fay yàgg-yàgg rek day metti rek waaye du fay waaye du tax ñu toog yaafuus kon war nañu mën a jóg doon benn sëy ñu mën nañ ñaan nañu ñaan waxtu ijaabaat yaa ngi fi ni ñu sunu mbokk yooyu waaye ñaane bërëb bu sell boobu ba noonu duñ ci teg loxo mukk waaye nag di ñaanal jàmbaar xamaas yi ak kursi yi ñëpp suñu borom gën leen dolli kàttan waaye di ñaanal waa réew ma suñu borom delloo fa jàmm waaye nag ñu am ndam lu mag ci kaw ñi nga xam ne mooy waa Israël loolu ñu ngi koy metlu fu metlu yam neexul kenn neexul kenn waaye dafay jan ñu di ko ñu di ko bàyyi xel fay ñu di ko bàyyi xel sëriñ si nag wax nañ sëriñ si bari wax nañ sëriñ Mountakha wax na ci maa ngi dégg sëriñ Abdou Aziz Touré wax na ci kilifa yu bari wax nañ si Moussa Fass yi kon ñi nga xam ne kilifa aada yi dañ ci déggul kenn dañ ci déggul kenn ku ci wax te pourtant ñoom lañ dem suñu réew ñoom ñoo ñoom ñoo gouverner amul kenn ku ci yëy yàbbi amul kenn koo xam ni ñu ci yëy yàbbi te nañ réew réew moo xam ne juriñ ñu ëpp ñu bëgg ñu imposer yoo xam kenn xamul lu mu doon di ci frais ay milliards du jeex ñu kenn xamut waaye nag loolu nañu xam kenn képp ku jur moom dénk masala ak sa borom ñun nag ay julli lañ te yéen saa sam dafa kat laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li axiihi maa yuhibbu nafsihi wa yakraha lahu yakrahu nafsihi mu ne jullit bi doo mën a gëm sa gëm du mën a wér li fekk li nga bëgg sa bopp bëgguloo ko sa mbokku jullit te li nga bañal sa bopp tamit da nga ko war a bañal sa mbokku jullit loolu fekk amul sa ngëm sa ngëm des na jàmm ju ñu yéene suñu bopp ak tawfiix mun nañu war a yéene suñu mbokku ji fépp fu mënta nekk moo xam Palestine moo xam Chine la wala Japon fu nekk li ñuy bañal suñu bopp tamit moom la leen di bañal ñi nag alxuraan leen tontu. وما نقوم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد نيو گم يالا ريك ديكو جامو ريك مو وار نيولين جيمو مبوغل الزهم كسان وات الارض والله على كل شيء شهيد واي انا لا سون بروم تونت نيغا خا نيو رفلو ان الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق ñi nga xam ne ñooy fednaal juriñu góor ñi di fednaal juriñu jigéen ñi saa boo xam ne deeluñ tuub yeesu jépp yëbbal seen bopp seen borom dañu xam ne mugul métti ngi leen a xaar mugul métti leen a xaar suñu mbokk jur yi nga xam dañ leen ci faat nag doon xeex ngir lislaam ba faatu ci sunu borom ñoom ñañi ñooñu ñooñu sax deewuñ yéen yéen a ñoom dañoo deewaay deewuñu waa tax saban la zuxuti fi sabilillah waata bal ahya su ma ñoom ñi ngi dund inda rabbi ci seen borom lañu nekk di dund ngir yurzaquna mu leen wërsëgal ñu xéwal kon jaanti ci yoon yalla ba ñak sabakan sun suñu bon kooku bul japp ni dafa dee deewul mi ngi dund kon loolu daanaka tawfiq bu mag mag la kon nañu gën a yokk ñaanal ñaan bi nga xamni sa sa moo ne addu'a aw salaaxul mu'minin yéen jullit ñi ñaan moy seen gannaay te gannaay nak moom lañu ñu xeexee que mënuñoo nekk Sénégal nag moom la am nañ ko def duñ mëna ci wax ñu wax ko duñ mëna ñaan tamit ñu ñaan ko ñaan suñu bon nangu ñi di jahi sidi Saadaat ali khadi salawati